jërëjëf mbokkee toloot yi bu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel ki ma fi dalal tey xam ngeen ko ñun ñëpp xam nañ ko li sëñ Abdou Khoudoss Mbacké di doom ci sëriñ maam Thierno Mbacké góor yàlla ñu di ko ñaanal sama borom bàyyi ko fi di seet sëñ Mbacké Kajoor di ko xam ne dama wax ni jàmm ne ci réew yi jàngee xam-xamu ilmu nujuum ba dëgg-dëgg yéen ñi jëflanteeg moom xam ngeen li ko ci sama borom defal defetu Sa Thiès nañ ko waxtaanee sëriñ bi ne woon na ci li xam-xamu science wane Eumeu Sène taxawaay moo gën a dëgër diggante Balla Gaye 2 Tapha Tine danañ ko waxtaane dana leer lu ci bari dana leer tey sëriñ bi boor a ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyu ngi lay saan sur bi Bprod Média waaleykum salaam wa buur ñu ngi lay fay nuyoo bu baax te di la ndokkeel di la ziar di ziar man bi g di ko ñaanal jàmm moom it di ñaanal alxaaji maam Thierno Mbacke suñu borom yàggal ko fi loolu te wéral ko waaw ah, buur Euh, fi ñuy tàmbalee rek mooy ci combat bi jàll muy Sa Thiès Eumeu foofu daanaka liñ ciy wax dañ ci leeral tuuti sarax doole ji mu am. Mm-hmm. ak li mu mën a fànk ak li mu mën a indil nit. Mm-hmm. est que xam nga li ma la bu baax ndax xam nga <clears throat> léeg-léegi nit am yitte ju rëy rëy rëy rëy. Mm-hmm. yaakaar ni war na ca mën a daj àdduna te yitte jooju du faju te fekk ay sarax yu tuuti moo koy lijjanti. mooy décanté boobu situation. Euh, combat bii jàll xam nga bi ñu fi njëkkee toog waxoon naa la ko. nee naa la Sa Thiès ci boppam. lu ko mooy rek dina am mbett bu wér a wér. gis nga ko. Mm. li ko waral mooy sarax dafa ëpp doole. surtout koo xamee ni que xam na sarax bi bi mu lay digal ni la def ko nga def ko te gis li nga war a gis. Mm. te heure boo ko defee li nga war a gis da nga koy gis moo feeñ ci combat bi jàll. Mm. da gis ni am na seen mën na bañ a sonn ci takk yenn takk yi. wala yenn waaw wala yenn sangu yi wala nangam. Hmm. boo ko doon xool waaye gis nga la mu sarxe daaneel na fukki caas fukki saacees. waaw la mu def ci wàllu sarax daaneel na fukki Sa euh, bu dafa am ay sarax yoo xamee ni heure bu arbitre ne fir soufflé moom la koy def waxoon naa ko fii ci sama émission yi njëkk yaakaar na dafa bokk ci liy déstabiliser sa adversaire muy sarax boo xamee ni que mi ngi am ci diggante bu arbitre bi ne fir ki nga xam ñi ñi nga xam ci sa staff lañ bokk ñoom ñoo la koy defal. mooy comme sarax sa nga génn loolu tafatin ca boobu day. ngoog waaw. gis nga waaw te dara te ka ma booleeg moom daanaka jotu moo tafaat nangam nangam ak yu ni mel. sarax dafa am lu muy doxe ak doole ju mu àndal ak kàttan gu mu am. Mm. léeg-léeg nit am jafe-jafe yu rëy rëy rëy rëy ba jaaxle ci boppam fu nekk mu dem fa loolu mënut a faju fekk ni sarax yi ko war a décanté situation boobu chaque jour mu romb ko. Mm. te bu ko bëggoon a def sax mën naa bañ a mat fukki junni wala juróomi junni wala ñaari junni. Mm. te moom daj na ci boppam lu mat 4 millions wala 5 millions te li muy saafara ba léegi saafara woogul. Mm. loolu moo lay xamal nag kon waxoon naa la ko fi ne la Sa mu gën a defaruwaat beneen bi ci tege nag mooy làmb jii di ñëw. mooy Balla Gaye 2 Balla Gaye 2 ak Tapha li bari na ci de. làmb ji doyo doy la buur. làmb ju yéeme yéeme yéeme la làmb la joo xamee ni que am na ci koo xamee ni si ñoom bu góorgóorloo dëgg-dëgg ci boppam dina am lu rëy rëy waaye nag ku ci mel ni Balla Gaye ak Tapha ni ñu taxawee nii tey boo xoolee tey bu ma la doon leeral dama lay wax ni la ñoom ñaar ñëpp am na ku ci nekk am nga mille chance pour jël ndam. Mm. waaye boo xool day mel ni ndam dafa mel ni jamono ji boo ko dee xool Balla gay day mel ni moo gën a jekko mm. euh, léeg-léeg nit gis Tapha ak euh, taxawaayam ak yenn kii fekk ni mbir yi du kàttan gi rek. Mm. kàttan gi moo ci benn point bi nga xam ne moom la nit ki njëkk a jéggi. Mm. dafa am nag yeneen juróomi ponk yoo xam ne ni que faw kii bëre da koy làmboo doo ko mën a am ndam. Mm. te Balla tout le temps mi ngi ci loolu. moo tax may wax Tapha ni ko gën a la góorgóorlu bu baax baax. na gën a jaaj. waaw na gën a jaaj bu baax a baax te bañ a bàyyeeku. Euh, sarax lu mu mënul ci nit amut. na déglu bu baax a baax sarax lu mu mënul ci nit amut waaye sarax lu mu mënta yàqal nit it amut. dégg mënul ci nit amut waaye lu mu mënta yàqal nit it mm. euh, buur dafa am li ñuy tuddee ci nit ki ay anti. anti mooy nit ki dafa am luy gën a bokk ci moom luy def ak moom munaasaba am ci loo xam ne defut ak moom munaasaba. Mm. Euh, nit ki war naa mën a sarxe ceeb war koo sarxe ñu ne ko sarxel ceeb mu jënd ceeb sarxe ko ba pare jaare fa yàqu mbiram dootu dox. la ma waral ok dafa am bés. Mm. bu fekkente ne ceeb nga war a sarxe dafa am boo xamee ne bu fekkee ca bis booba rek nga koy sarxe faw dangay ngay togg ceeb ba ba mu ñor. warut a nekk ceeb bu ñorul. nekk ceeb bu ñorul bu fekkente ni am na ci yeneen bis yoo xam ne bu fekkente ni moom la warut a doon ceeb bu ñorul warut doon ceeb bu ñorul faaw day ñor waaye sombi lay doon. am ci bis yoo xam ne fekkente ni moom la day ñor ba pare day ànd ak borom bi dunk comme ceebu ganaar mi ngoog am ci bis yoo xam ne fekkente ni moom la ceeb bi képp ngay jël noonu nga sarxe ko ci noonu it nag noonu la amee ci ginaar noonu la amee ci bëy noonu la amee ci xar noonu la amee ci nag noonu la amee ci gëléem. lu ci nekk am na ci. lu ci nekk dafa am secret ak sirru ak waxtu ak couleur bu koy accompagner ngir que li nga ciy sàkk nga mën ko am bu loolu dajewul la nga ciy sàkk mënoo ko cee am. <laughs> boo ubbi woon antenne bi di nga di nga jot ay appels yu bari ñun la man diw sëñ sàngam digal digal na ma sarax sàngam sarax sàngam sarax sàngam ma def ko ba tooy te pourtant sarax yee ñu leen di digal seeni sarax la waaye mënuñu leen a jariñ façon bañ ko defee moo deful munaasaba waxtu ba ak njariñ la ñu soxla buur ndax xamoon nga ni buur bu waree dem gis président wala mu gis kenn ci ñooñ àdduna am soxla su mu koy diis am na benn couleur boo xam ne bu ko porté am sarax bu mu def bu demee wallahi alladi la ilaha illa la mu doon sàkku da koy am hmm. est-ce que xam nga li ma laa wax. bu mi ngoog moo tax nag sarax dafa am ay waxtu dafa am ay bés dafa am ay couleur dafa am ay façon yu ñu koy defee Abdou Khoudous dina war a sarxe bëy bëy ba ka ko war ka war a defal jigéen la Abdou Khoudous léeg-léeg mu war a sarxe bëy ka war a defal góor la léeg-léeg war a sarxe bëy kam ko war a jox imaam la. léeg-léeg mu war a saraxe bëy boo xamee ni moom ci jëmmam bu ko rendee du ko rendi te dañ koy rendi indil ko bañ fees ko ba def lépp ba noppi mu lakk ko defar ko ba mu baax mu jëm yóbbul ko nit te euh, moom ci jëmmam du ci ñam du ci du ci du ci kii mm-hmm. dégg nga mm-hmm. léegi sarax kàttan googu mu àndal noonu mooy tax nit ki mën a jekku àdduna mooy tax nit ki mën a jekki-jekki ci bërëb jóge ci bërëb dem ci bërëb bu mu foogee wutoon maanaam gom bu toll ci waaw jékki-jékki nekk ci cent nekk ci cent nekk ci cent sarax moo mm. koy def. Euh, gis nga buur <laughs> léeg-léeg nga gis nit ku tëju ba egg ci lool jaaxle ci boppam ba egg ci lool. lu mu laal mu yàqu lu mu laal mu yàqu lu mu am mu yàqu lu mu yaakaar mu tas. Mm. relation bu mu am mu dagg fekk ni la ko teg sarax bu mu wërta saraxe moo ko def. dafa génne bu mu wërta génnee léeg-léeg nit ñi di ko tënk ci tabian ni kat ku am tabian sàngam du rendi ku am tabian sàngam nangam loo di sarxe fekk demewul noonu loolu bokkewul dëgg-dëgg ak dëgg-dëgg askaalul almiya bi dëgg-dëgg muy maanaam maanaam maanaam sa forme yi forme yi xam bi loolu bokk ci dëgg-dëgg mm. dafa am maanaam ruuxaan yooyu noonu tabian yooyu dañu dafa am lu muy melal ci nit ki rek mm. maanaam laf si maanaam maanawiyan la waaye du zaatiyan Euh, maanaam maanaam maanaam maanaam très bien waaye du fond bi la waaye du pratiquement bokkuñu est-ce xam li ma la léegi nag léeg-léeg nit bokk ci tabi xasangam ñu ne ko faw nangam nga war a sarxe fekk nangam boobu bu ko sarxe ay mbiram yàqu ba faw waaw moo tax xam-xam buur lu doy doy waar la xam-xam buur lu te sëriñ bi mm-hmm. te njëriñ laay ni tey mm-hmm. mm-hmm. suuf si moo nekk bii man maa ko moom waaw mooy yaa ko joxoon. waaw ah, dëgg la. Mhm. di suuf soo xam ne njëriñam bari na. Mhm. tey. Mhm. moo nekk nii. waaw suuf jërëjëf buur suuf loo jërëjëf buur gis nga suuf bi mooy suuf bi nga xamee ni que bépp njàqare bu nekk ci nit daf koy saafara lépp loo xamee ni que jaaxaloon na la wala mu tëwoon la nga ko doon wut ay at mënoo ko am mm. daf koy saafara. ndax buur nit ñi dañoo xamul nii jafe-jafe yi ak ñàkk ubbeeku ak ñàkk am li nga bëgg dëgg-dëgg li koy waral tëju képp la ak cat ak làmmiñ waaw ak yu mel noonu ah, mm. euh, seytaane dina koy def rab dina koy def làmmiñ dina koy def li ñuy wax xéewa da koy def xéewa ñu bari xam nañ ko mm. doo ci détail waaye ñu bari xam nañ ko mm. daf koy def suuf bii bu fekkente nit ki daf ko jël mu jëriñoo ko niñ ko ko waxee ndax xam nga wanoon naa la ku suuf bi lee ma ciy jaay lee ma ci wecc ko waxoon naa li ñu koy wecc ko ci boîte bu ndaw boobu donc waaw mi gis nga jëndi suuf bi juróom-ñaari ci biir ndox mhm. lépp lu mu fekk ci yaramu ni daf koy dindi mhm. moo xam liggéey la moo xam rab la moo xam jinne la moo xam seytaane la moo xam xéewa la moo xam njabar gu yàgg la moo xam umu la umu ndax léeg-léeg waaw mhm. raay sa yaram dem dem toog amul bés amul waxtu léeg-léeg nga gis koo xamee ni dafa dem sangu fenn mu tëju tëju mhm. wala mu dem takk seen soxna ba far tëju mhm. billaahi lazi laa ilaaha illaa hu bu jëlee suuf si moo mook soxnaam bu ñu ko jëfandikoo gaaf ku nekkoon ci seen diggante day deñ waaw ah, moom de amoon na waaye ba mu takkee diw ba tey jeex na ah, boobu la ay mbiram yàqu woon suuf si daf koy dëgg dafay dindi lool da koy dindi ba mu set wicc suuf si buur daanaka ñi ko xam-xam nañ ko boo gisee émission yu baree bari tegatuma ko li muy manqué ci man mooy bëri te bëgg bëgguma di ko présenté nit yi di ko soxla ba pare du am <laughs> sëriñ bi hmm. bàgg yi. Hmm, hmm. diggante ak jaaru. yàgg na ko jërëjëf euh, buur xam nga yii xam-xamu bàgg la. moom la arab di wax al ahjaar al ahjaarul karim. al ah, ahjaar baatu jaaru kon foofu la génn. waaw xam nga baatu jaaru muy xaatam. xaatam lañuy ñuy tudde jaaru xaatam. mooy jaaro Euh, al jaar nag foo ko déggee mooy xeer. xeer per yu baree bari yu ñuy def ci jaaro ay per lay doon te wërta doon per xeer la war a doon. gars yi wax. gis nga buur fay rouge dafa am. Hmm. dafa am fay rouge am turquoise am yeneen ak yeneen ak yeneen. Hmm. am aynul euh, am euh, aynu namir. Hmm. am yeneen ak yeneen yoo xamee ni mu ngi ci biir am upal exemple tey bii upal la ci yenn ci jaaro yi bagg yi bëgguma indi yëpp. per bii buur dafay dund. moom bi dafay dund. exemple tey bu fekkente ni bàgg bii la nga xam ne opal bii la ñi ko moomee mooy waa balance. ñi nga ah. ah. la. ñoom ñoo moomee bàgg bi. Hmm. gis nga bàgg bi bu fekkente nit ki da koo takk. mu doon nekk ci di lijjanti lu mel ni xeetu falu wàllu nguur. Hmm. wala mu doon lijjanti wàllu doon musicien bëgg siiw ci àdduna bi bëgg a cartonné wala mu doon nit boo xamee ni que. dafa nekk ci benn mbir di ci yëngu te bëgg am ampleur bu kawee lool boo xam ne nit ñi amuñu ko. bu dee football kat. bu dee football kat muy joueur muy musicien muy politicien muy mbër wala xeet yu mel noonu nga xam dañu bëgg a siiw ñoom ñoo moom xeet yu xeet yu mel ni xeeti bàgg yi. jaaro dañ ko jekkal ba pare jox leen ko wala dañ leen ko jox ba noppi am nuñ ko. déedéet jaaro bi nit ki bu ko jëlee ba noppi. Hmm. waxoon naa ko fi yaakaar naa sa téléphone boo génnee son bi dana wax. Hmm. mais du indi son bi xumb gi mu war a xumb du ko def mais ouvert bi boo ko taaloon tey activé ci bultuf bi son bi ñu nekk ci kër gi ñëpp koy dégg jaaro bu ko nit ki jëndee ba noppi ci turu ndaayam ak turu baayam ci lañ koy def lañ ko activé du amul benn gàllaaj nag buy dugg ci biir loolu mooy secret bi ci nekk benn gàllaaj duggul ci biir waaye gis nga buñ ko jëfalee nit ki ci turu ndayam ak turu baayam ba noppi mu jël ko dugal ko ci loxoom di ko jëfandikoo billaahi allazi laa ilaaha illaa bu amee ci moom 60 jours muy 2 mois maanaam moom ci jëmmam dafay yëg yokkute goo xamee ni jàppoon na ni lii mën na dund 40 ans du egg fii. Mm. te gis nga jaaro ba bu doon tey bu doon ci moom nit jël ko takk ko du ko jariñ dara. waaw ci moom lañu dafa am ay secret lii. Euh, boo demee ci masaar ba dina koy leeral dafa am ay secret yoo xam ne moom moo ci nekk ci axjaarul karim ak xawaatim bi mm. dégg nga léegi gis nga axjaar bi dafa am ay askaal dafa am ay sakk la dafa am ay lawnu burju bu ci nekk da nga am sa xeeru bopp xeer bii tey boo ko dee xool waa balance ñoom ñoo ko moomee. Hmm. ñoom ñoo moomee xeer bii ñooñu tey da gis ne ñu ko takkee dañuy yokk seeni i mbir dafay yokk seen xalaat dafay gën a évoluer hmm. du ñu angoissé du ñu stressé te du ñu am benn tawat ci seen biir xol. du ñu am benn tawat ah. ci seen biir tey xam-xam lay waxtaanee. Mm-hmm. sëriñ bi. Mm-hmm. kii gaañu mos nañ ko. <laughs> du xob mm-hmm. du reen mm-hmm. du maa ko jambaaje fii mm-hmm, sin la jóge déedéet alquran la alquranul karim la boo xam kenn ci magi réew mi moo ko bindoon ba noppi waat ko am na sax famille buñ koy doon dëgg la ci lu wér mooy ndox la ak xaas ak samsam bi ak samsam buur kii Euh, daanaka boo ko dee xool moom la ñuy tuddee xam bu góor bokkul ak xam bu ngóor mm. xam bu góor lañ koy tuddee mm. mooy góor gi fi nga ko fekkoon bu ko jëfandikoo da koy dolli sawara mm. kattan lay jox nit ci wàllu néegu sëy kattan kattan lay jox nit ci wàllu néegu sëy lii buur bu ko nit jëfandikoo li fekk muyut yàlla kàttan day yokk ci moom maanaam bu fekkee ci soxnaam rek la yem ay soxnaam benn ñaar ba ñett ba ñeent ay soxnaam doyuñu ko benn yoon nga koy naan mu jeex ndox nga koy xooje ak ndoxum sam-sam jublu penku hmm. toog jëfandikoo ko gis nga buur lii dinaa ci wane beneen sax ci beneen émission boo xamee hmm. ni que am na leneen lu muy àndal hmm. loo xamee daanaka ñoo niroo ñoom ñaar tariqa istimaal yi bi waaye am na tuuti lu ñu wuutee gis nga buur kii bu ko nit ki jëfandikoo bu yore ñeenti soxna ñeenti soxnaam doyuñu ko te benn te benn yoon la koy naan ci ak dundam te li feeg muy di yàlla sàkkare si sa sa bis bu set b xëyee day gën a yokk waaye wàññeeku est-ce que dégg nga ma li feeg muy du yàlla dem njaalo jekk keneen mm. heure bu xëyee day yokk waaye du wàññeeku kàttanam day yokk waaye du wàññeeku ba ba muy faatu di doon di am téeméeri àddina fi bàyyi njaboot te loolu bu ñu revenir en arrière tuuti dinañ ko gis bu baax a baax lii ay secret la yoo xamee ni que xañ na euh, waxtaan sax déedéet déedéet déedéet lii du ay mbind yu bari yooyu bind ba kii ab xaatim la ak ñetti juróom-ñaari baat yu muy àndal képp nga jël jëfandikoo mu jeex waaw. sëriñ bi ba tey ñu loxal. Mhm. Mhm. Mhm. tey damay ñëw ak moom ci xam-xam. sëriñ bi. lii laa wax. buur jërëjëf yii moom. Euh, gaa yi xam nañ ko daanaka ñi nga xamee ni moom seetaan daf leen sonal ci yenn ruq yi ak ci yenn kër yi. ak ci yu baree bari ci seenum njaboot. nga xam ne seytaan daf leen ci gàllankoor lu baree bare bari saafara saa ngi nii. Ah, day tiit ah, day tiit ngay gis ni seytaan daf koy sonal. Mhm. nga gis ni moom ci jëmmam day angoissé. Mm. day stressé léeg-léeg day bëgg toog rek wéet du bëgg nekk kenn xol bi dafay naqari. Mm. saafara saa ngi nii loolu dana dal mag dana dal xale. waaw hmm. ah, saafara saa ngi ni moom lu simple la doonul ay keeg nangam dafa am loo koy booleel jël sangoo jël kii bi takk jeex na takk. amatul leneen boo ko mënta takk mën nga ko takk ci sa biir kër. du la wàññi dara te la ci bëggoon a saafara da nga koy saafara te boo ko defee sa biir kër loolu mu doon dàqal nit kooku képp ku nekk ca kër ga dana ko dàqal. moom lañuy ñu dàqee seytaane yi nekk ci biir kër yi moom la ñu dàqee jinne yi nga xam dañoo sanc ci terrain yi mm. te borom léeg-léeg nit jënd benn terrain ba pare mënu koo jëfandikoo ndax lan dafa am seytaane su fa nekk wala dafa am jinne ju fa nekk ñu ni borom rab la terrain bi dafa am borom ca la gëj amaat xaalis ba léegi xam nga loolu dafay am ci nit bu takkee soxna dafay am ci nit bu jëndee oto dafay am ci nit bu nit bu jëndee kër mm. parce que ñett yëpp mag ñi dañ daan wax ni lu gën a mat a seet ci nit ci ñett yi gisuñu ko mm. mooy soxna kër ak waruwaay daamar léeg-léeg nit takk soxna jékki-jékki rek mbiram yëpp dem. waaw ba soxna sax la mujj. soxna sax la ñuy mujj gaafal bu ñu bu bàyyee soxna sax du tax mbir ma dellusiwaat. Mm. parce que lu ko waral mooy dafa am buum gum ko bàyyeel ci digg baatam. buum googu fu mu mën a jaar képp ku bokk ci ñoom bu ko gisee day xam ni kat ah kii kat diw sàngam téye woon na ko ci lii. Mm. seetaane soo seen saafaraa ngi nii lu yomb yomb la. waaw ab dërëm day nekk ci biir day ànd ak dërëm lii waaw day ànd ak dërëm. xam naa kii buur mag ñi xam nañ ko ñu yàgg ci àll bi ñëpp it xam nañ ko kii moom daanaka jërul kii. sëriñ ñu ñëw ci mhm. jërëjëf buur kii euh, duma ma wax tur wi ndax bu ma ko waxee sama mbokki suy wax yi dañuy dañuy naan nangam waaye kii wàllu wërsëg képp ci lay dox. ubbeeku rek képp ci lay dox. xam nga am na bu xaw a niroo ak moom. boo xam ne deretu kàkkatar lañu koy bindee. waaw mooy deretu mhm. ñu ko defee émission lañ koy bindee. Mhm. boo ko bindee ba pare dereti ginaar nga koy maase. boo ko maasee ba pare dafa am ñetti sunguf yu muy àndal. Mhm. billaahi allazi laa ilaaha képp ku ko jëfandikoo dana yor xaalis ba jommi ci boppam. am na ko ko mos a jëf damaa woo ni ma ndax yàlla taxañut sama wërsëg jox ma ko benn <laughs> bëgg maa waaw ah, ah. waaw nee dafa tiit daal da ko bëgg a bàyyi ndax te bureau bu ndaw laa ko ci defal nee na da ko bëgg a bàyyi ndax day ragal ni yàlla daa taxañ wërsëgam benn yoon jox ko ko waaw euh, xam-xam ak xeeti sunguf yi nii dafa am ay secret yu ci nekk yoo xam ne daanaka boo ko dee wax nit ki du ko mën a comprendre ki lay déglu nii du mën a comprendre hmm. waaye bis ku ko ci ñam benn yoon dana xam bu baax a baax ni suñu borom li mu yor lépp mu ngi ko dëxañ ci biir jaam yàlla yi. bii moom defe naa ni waaw <laughs> waaw kay buur jërëjëf kii nag euh, mooy sunguf bi nga xamee ni. Hmm. ñun ñaare bu fekkente ni nit ki maanaam sàkkaraam dafa dellu xam nga dafay am. dafa hmm. day dellu day dellu dellu dellu ba mel ni xale. loolu nag dafa am yu koy waral. léeg-léeg rab bu yàgg ci nit dana koy waral feebaru hémorroïde bu yàgg ci nit dana koy waral léeg-léeg liggéey dana koy waral mooy nit koo xamee dañ ko takk xale wala ñu takkoon ko xale mu ci dana koy waral lii lañ koy saafara dafa am benn kii benn huile bu muy àndal moom lañ koy jox heure bu ko frottee ba tëdd dañu wax ni frotté na ko tëdd na ñu toog liggéeyal ko ci kurus ndax waxoon naa la ne la sidit yooyu dafa am burju yooyu burju yii fukki burju ak ñaar bu ci nekk dafa am sidit mu jàpp sidit yooyu nag jëm ci jëm ci sàkkara si dañ ci jël ñetti sidit wala ñaari sidit ñaari sidit yooyu moom la ñuy dellowaat bu ko frottee ba tëdd ñun fi ñu toog turu yaayam turu turam ak turu yaayam ñu toog dal ko ko muy dellu mu koy yëgal boppam muy delluwaat ba comme ni mu ko bëggee waaw ci lii lañ koy liggéeyee. <laughs> kii. waaw kii moom buur euh, ci wàllu cat rek lay dox. du mooy euh, dof bi du ko wax. jàll naa ko. jàll ko euh, tuddaat. waaye. bii ci wàllu cat rek lay dox. wàllu cat nag buñ ko waxee mooy léeg-léeg nga gis xeeti musiciens yi ak yenn kii yu bare bare footballeur yi du ñu takk. doo leen gis ñu takk ay jaaro du ñu takk takk gàllaaj du ñu takk nangam du ñu takk nangam du ñu takk nangam. xam nga lu ko waral la. li ko waral mooy sunguf bii bépp nit boo xamee ni jëfandikoo na ko bépp nit bu ko jëfandikoo. masalum tey nga xëyoon tey ci dimanche bi nga jëfandikoo ko tey la lan ba nga bàyyi woon ba dimanche nga jëfandikoo ko man nga bàyyi ba dimanche bi dellusiwaat ca weer ba nga dokk cee jëfandikoowaat. moom par dimanche moo tax léeg-léeg bu ko ñu nekk en extérieur jëlee ma di leen ah, xam boo ko jëlee tey mën nga ba weer doo ko jëlaat ci bis boobu diggante bi nga ko jëlee ba ba nga koy jëlaat maanaam dég sax du la fi jam dég Mm. dégg dégg sax dañuy wax ni la fi jam maanaam amut cat wala làmmiñ wala bët bu aay wala njabar wala xeetu def-def boo xam nit mën na ko def ba jàppale yow comme ni mu ko bëggee moo waral musiciens yi doo leen gis ñu takk doo leen gis ñu nàngam kii mooy seen secret. te tey la ñuy gën a saf. tey la ñuy gën a saf te mënu leen a yàqal lu toll ni tarfatal ayni te gis nga buur lii ay xeeti xam-xam la yoo xam ne dañ koy jëfandikoo yii yëpp nag. bu dee ci man ci eh, tariqa isticmaaliya bi ma xam ci wàllu biddiw képp laa ci mën a jaar pour liggéey ci li ma ci mën a liggéey hmm. ndax xam nga am na ci koo xamee ni moom moom la xam moom ci àll bi lay dem wutal ko bopp wut daal di def def def ah, jël jëm bu la ko xasee jox pare na ci man nag ci biddiw bi laa koy liggéeyee biddiw doomu adama ci lay liggéey li ma bëgg a liggéey waaw moom lay toppal nit ki ci lépp du début à la fin ba moom ci jëmmam su ma paree ci moom day yéemu ci yàlla suñu borom subhaanahu wa taala ndax léeg-léeg nit ndeysaan dina wër fu nekk ci àdduna bi te lim doon seet wallaahi alazim du ci teg bëtam wallaahi du ci teg bëtam wallaahi wallaahi wallaahi wallaahi wallaahi ku ne lekk wallaahi wallaahi waaw mu ngi noonu mhm. di jataayu xam-xam bu am solo sëñ Abdou Khoudoss Mbacké mhm. Mhm. xam ngeen ko dañ koy ñaan rek wax dëgg yàlla ndax ñi jaaree ci ñun jëflante ak moom sant nañu yàlla te mhm. loolu ñun dama koy wax chaque jour ne ko mhm. Mhm. suñu sant yàlla kon sëriñ ñu bàyyi rek nga tàggoo waaw jërëjëf buur ñu ngi lay sant bu baax yow it di la gërëm di la ñaanal jàmm ak tawféex bu baax te di ko sàkk ci yow euh, di di di di di ñaanal rek Seex Muhammadul taxal Basiir saa yàggal ko fi te wéral ko alxaaji maam Thierno Mbacke suñu waajur saa borom yàggal ko te wéral ko dolli ko kàttan ak dëgër te gën a dëgëral njaboot gi yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu